ci ndigalu kilifa yi ñu jox ndigal ngir bindu tey bi ñu joxe ko di jël sunu nuyoo ni ñu ko daan defee di ko teg ci loxo sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy Al Amin moom mooy jël nuyoo bi nag teg ko ci loxo ay magam ñim bokk Seex Sidi Haaji Malick yëpp tàmbalee ko ci ñoom sëriñ Cheikh Ahmed Al Mansour duñu lim moom nag ñooy xam ñoom ñëpp buñ ko jëlee teg ko ca loxo xalifatul am li taaifati tijaani bu Aboubacar si Mansour ñaan yàlla bàyyi ko ci sunu kan te ko mu mel ni dañu sant liggéey boo xam ne liggéey bi yomb na waaye jafe na li ñu fi dajale nag mooy iid dikra mawlid fàttaliku juddu Seydina Muhammad yonent yàlla aysa dafa ñaanoon ni rabbana anzil alayna maidatan min alsamaai takunu lana aydan li awalina wa axirina bis ba yonent yàlla aysa ñaanee taabal ja ñu wàcceel ko ci ay teraangay xéewal yu jógee asamaan bis booba nar a nekk feet feet goo xam ni day yóbbaale ñi ñi ci ginnaawam ak ñi ci kanamam bu yàlla nangoo feet googa ak bis booba te ñu xam ni sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko ëpp cër kon nag ñu nit juddug sayidna muhammad ayit la loo xam ni ñun moom lañuy ñuy ci bile jataay yàlla wax ak yàlla muusa ni ko kat wala qad arsalna muusa bi ayatina an axrij qawmaka min adulumaati ila nuur waaye wa dakkirhum bi ayaamillah fàttale leen bisi yàlla yi mooy yenn bis mooy bis yala yàlla xéewalee jox la alman wa salwa bis ba mu la musalee ci firawna ayyaamullah bis yooyu nga xam ne teraanga la woon ñun sunu ayyaam mooy bi juddug sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëriñ xaaji malik radiallahu taala an ci téeréem bii ñuy tuddee zajrul qulub ñu wax ñu naka la ñuy defee tazkiyatu nafsi mais jaare ko ci bindu cheikh sadi xaaji malik bii tudd zajrul qulub waaye Maodo téere bu mu taalif ñaari tur la koy wutal parce que zajrul xulub bu fekkee ñi nga xam ne seen niveau sorewul wala boo xam-xam bi am na niveau bu mu war a ñoo ñu la bàyyee turu zajrul xulub pour ñu doxal ko mais tuddee na ko beneen tur nag te mooy lan xafira saalikiina tariqal aarifiina moo tax daan sammaytuhu zajrul xulub waaye teg na xafiira xafiira saalikiina tariqal aarifiina xafiir mooy Euh, lu mel ni bateau bu ñu war a indi ki ñu jox ordre pour mu teg ko ci yoon ba la ca nekk ak marchandise mu ñu teg ko yoon sëriñ Hadj Malick ne nag ñun thème bi ñu tànn tey tànn ñu zajrul xulo ñu ngi tànn tànn nag xafira salikina tariqal aarifin mu tàmbale téere bi xëli dë def istifham xël am ñaari firi bu la neexee mu nekk istifham inkaari te tontu ba moo koy defal boppam xali dëxu intaaral xuraab yatibu tontu ba mooy déedéet bu sa bu demee ba nit ki ba jaaw dunda mënatul a neex bu la neexee nga def ko naf yu dàq te mooy xali dëxru déet jamono yatibu di mën a neexati intaaral xuraab moom la alxuraan wax ne hal jazaul ihsaani illa al ihsaan ca firi ma mooy laysa jazaul ihsaan illa al ihsaan mais lu tax moo doo utiliser baatu dëxër te utiliser wul baatu zamaan utiliser wul baatu asr utiliser wul baatu xuqub te yépp ay xeetu jamono la mais Maodo benn la ci tànn muy dëhër parce que ñaari yoon la dëhër ñëw ca alquran hal ata ala linsani xeyrin min addahri lam yakun cheyan madkura yonent bi bi muy wax daf ne laa tasubbu dëhëra bu leen ŋàññi dëhër fa inna laa huwa dëhër lañ ciy bëgg a wax mooy dëhër responsabilité ŋàññ koy yemul ci di wax ci sa gémmiñ dëxër lu bon mais jamono boo defee ci waxtu jëf ju dëppoo wala jëf doxaliinu yàlla yaa ngi ŋàññi jamono te yëgoo te am na sanction yoo xam ne jamono joxe na ko nañ la ko teg te danaa ci ñëw maa maalik nag ni wa jaa rasul mawtu baada yanub yëg nañu baaxoñ bi dem na te mooy kawar gu ñuul gi am na ndaw lu ko remplacé mooy béjjaaw alaaji maalik ne araaka na siitayal mawt kaaf gi kan moo ko moom est-ce que mag rekay dee borom bi jaaw rekay dee ba araaj maa naan ko araaka na seetal mawta déedéet parce que nee na falil kulli moo xam liir bi moo xam jeune bi moo xam mag mi moo xam màggat bi min baxril mamaati na si kon kaaf gi génn na mag mi parce que nee falil kulli te borom man tax ne alkullu xukma ne alal majmuuci ke kullu daal lay sa saa sëñ Mansoor borom daara bu bi daan tàng naan kullu bun jun wa kullu jun bun wa maa baax da bun kun wa maa baax da jun bun kooku boo jàngul kullu yëtu doo ko firi kon damir bi xam nga ci ki mu dellu boo demee ci suutul falaq yàlla benn turu yàlla la ci tudd xul aoudu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqaba wa min charri nafasaati mais boo demee ci suurtu naas bi ci topp ñetti turu yàlla la ci employé qul aoudu bi rabbi naasi qul aoudu bi maliki naasi qul aoudu bi ilahi naasi ñu ne ñetti naas yi bokkuñu parce que bu fekkoon ne ñetti naas yi bokk du ko répété kon qul aoudu bi rabbi naasi yàllay ndaw ñi waaw ko rabb la rabb mooy ngay dajale xaalis pour jënd ci téere ba ñu yàllay dajale sunu ndoxu baay ak sunu ndox yaay pour def ñu doom boobooy rab waaye bi nga dajalee ba jënd téere ba pare bu ñu laa ko moom téere bi da nga naan maa ko moom ana ko xamu ni malikin naas bu la moomee nag yow ndaw lii ba nga dëgër jeune bi nga xam ne màggan nga jàkkaala dese ak yeete fajar mu ni ilaahi naas yàllay mag ñi falil kulli min bahril mamaati nasibu daf caa teg ala kullu mawludin mu commencé leeral détail bi képp ku jigéen sukk su ku jur fala yu annahu yusallimuhu dana ko nuyu ku koy nuyu shu'ubu dee yaadal habibu kon nee na ki ci biiru yaayam yenn saa liir fa la ko dee di nuyoo woo yu jibu mu nekk moor ne day judd du génnaale bakkan am na koo xam ne bu génnee la ko la ko dee di nuyu mu fay nuyoo ba benn yoon lay yuuxu pare ci ñu lema lema si yóbbu am na koo xam ne day raam ba pare dee ni ko aleykum mu fay am na koo xam ne day taxaw ba commencé dëgër dee ni ko salaamaaleykum mu delloo fay yàlla nee na kon proséti say xaymaa mi ngi la junj ni kon fii ba ba ngay dëgër bul foog ni dee dalaa jomm yow moo tax mu ne walil kulli nag bu ko jox mag mi rek tey bu ñëwoon jàkka ji dana am ku faatu suba ku ne sa morom koy xool naan borom weer yële day bu fa bu dul moom dana ma jaaxal yow sa bopp moom danga koy génne nag moom moom kay ku takki weer ngay fara di xool rek kon aas boobu ba ba ngay taxaw nee na dee mënal nu yóbbu waaye yamu ja de ala kullu mawludin wa intaalu umruhu mu indi beneen képp ku juddu même sa fan bu guddee yaa ngi ci diggante mën ba ba ngay am doole ba ba ngay nekk 40 ans 50 ans 60 ans say xaay maa ngi nii kooku itam donte fanam gudd na ndax deewul ci liir waaye yu sallimuhu nag kon bul yanu ay pois ba alteeru def ni dee dala fi bàyyi déedéet at mu nekk âge bu nekk nit am na ko faatu Seydi Hajj Maalik nee na ci sa wàllu tawxiid ak yëg-yëg na nga xam ne yow mi mënoo mënoo rëcc lool waaw su xale su suñu xale bu ñu foogul dee dee jeune bi yaakaarul dee dee waaw màggat mi tongaroon ko moom jarul wax alaaj maa ngi ni ko duma la wax dara yow wa iyaaka tadbiiran rek yow moom ay pexe laa lay tere moom di jéem a ñuulal ak di jéem a entraîner yàlla boo gis màggat maam 60 nag di daw pour bëgg a nekk xale ree sax dalay jàpp alaaj maali moom def na ko yow moom <laughs> yaakaar di biiran rek <laughs> yow ay pexe rek laa lay moytuloo mënoo wax a wax wax ba doo màggat moo tax wolof nee na yii kenn mënu cee jëlee ndam fekk mboob nga suuxat ko pour mag màgg doo ci am ndam mukk yefal màggat mënoo caa jëlee ndam mukk bu ragal doo ca jëlee ndam mukk yedd ku tële mënoo caa jëlee ndam faj ku repp mënoo caa jëlee ndam kenn mënu cee am ndam ci moo tax sa yaay maa ngi woy yaaka tàdd biiral yegg nga ca as bii nag na la sa xol ak sa tawxe jiital wa sallim ilallahi l umuura tatuubu alaay maa ngi nee na boobu nag tuub jot na nag moo tax li tax nafsu yooyu ñu war koo cadré waat mu dellu ci bindu Cheikh Seydi Hadj Malick parce que nafs la yàlla soxla pour mu ñëw kër yàlla xadd aflaha man zakkaaha wa xadd xaaba man dassaaha parce que juróom-ñaari nafs moo am am na am nafs boo xam ne al amaara bi suu i la nafsul amaara bi suu sëriñ nee na nit koo gis yàlla yónni na ci yow yonantu avant mooy yónni ci yow Seydina Muhammad moom la ñu tuddee conscience waaw mooy lu ñu tudde al waayu wax waxyu dafa ñaar la yu bokkul seen cheikh nee na am na wax waayu am na wax waxyu waayu boo defee lu jaaduwul boo tëddee guddi moo lay yee naan la pourtant li nga def jaadu de de li nga def rafetul de waayu bi di répété ci sa nopp bi boo ko dee tànqablu bu yàggee rajo bi day fay dootu la waxati dara mu xam ne wax yu mënatul ci yow dara xad ankaro bil waayi wal waxyi lazi adla bihil mawla lahum tanzila nee na ñoo njëkk a weddi waayu bi ñuy weddee waayu wax yu amatul place ci ñoom nafsul amaara bu la diggalee am na ku nekk ci wetam ku du nafsul lawaam yàlla ci moom la waan wa nafsi wa ni ko ah man de maa ngi lay góor dénk bu ma sañoon lii la bakkan bii di sant doo ko def bu lafsu lawaama ëppee ceew doole nafsul mulhima daw ñëw wax la nan nga war a def ba mucc bu la nafsu mulhima dee ni nga war a mucce nafsu raadiya kontaan ànd ak yow bu nafsu raadiya ànd ak yow nafsul mardiya ñëw fekk si ko bu mardiya pare nag mu tamit inaa ciy bu mu itam ante nafsul jël place muy juróom-ñaar mais benn bu ci nekk am na turu yàlla bu ko yóbbu kër ci kër yàlla. moo tax scénario boobu la borom daalee jàngale nee na bi yàlla bindee àdduna bu ñuy tuddee yaram dafa jël président de la république bu ñuy tuddee ruux. jël xol def ko palais palais palais de la république am jël euh, nafsu def ko muy jabaram mu jël hawa def ko muy parti opposant jël ay cëram def ko muy armée beeg soldat bi jël xel def ko muy ministre mu conseil euh, euh, présidentiel wala conseil technique mais ruux bi mu yëgee ni jabaram hawa mi ngi koy labat ci suuf di ko seeti ti yëgu ko àq la ministre bi moo téléphoné ruux ni ko sa jabar waa jaa ngi wax ak moom de bi mu waxee ak moom ba ba ba ruux xam ni intervention yàllaa ci des yàlla ruux daw ci yàlla kalaame ko yàlla wax ak ruux ni ko yaa ayyuhan nafsul mutmainna waaye bul war a waay irji'i ila rabbik dellu ci sa jëkkër trahison baaxul ah moo tax nafsul mutmainna eh, ruux mooy jëkkëram yaa ayyuhan nafsul mutmainna irji'i dellu ila rabbika ci ruux mi nga xam ne moom mooy sa jëkkër ci scénario daalia raadiyatan mardiya su ko defee moom mu gërëm la nga bëgg moo tax mu ne mamlaka boobu mu def ginnaaw nuyoole ko nee na roox kon nag ñibbil kër yàlla bu fekkee mooy xaq bi waaye nag ñibbil ci sa kër roox moo tax yàlla nee na roox boo gisee roox yàlla bi mu koy bind daf ko bindee parfum moo tax euh, euh, yasalunaka ani ruux quli ruux min amri bi yàlla waxul ni kenn xamu ko de dafa ne ci mbiru yàlla yi la bokk muy bind ruux jël parfum teg jël leer teg jël yëg teg yooyu la dajale yàlla bind ci ruux parfum bi mu bindee ruux moo tax bu dañee ci nit ki nit ki di nëb di xeeñ di soppeeku bu ñu wutul galaas ku ne taf sa bakkan parce que parfum baa ñibbi moo tax ñu bind ko ci leer mooy sa bët yi di xoole di gis parce que bët yi wax naa ne du gis déedéet bu ñu fayoon làmp bi ku ne day làmp sa morom te ñoo ngi bët Mm-hmm. bu ñibbee rek da tiim néew bi di ko def nii sa waaye dootul gis dara parce que lumière bi ñibbi na bind na ko ci xam-xam su ñibbee nit ki dootul dootoo ko laaj masala parce que xam nga ni dootul tontooti mu bindee ko baqaaw su ñibbee fanaa oo fay des tur wi sax dañ koy changé dootoo dégg borom borom borom ci faatu ana néew bi rek ngay dégg ñaari tur am néew ak liir su juddee ba semi bi ana liir bi bu faatoo ana néew bi moo tax buy gane ci àdduna moom liir day dajeeg néew di ñibbi mu ne ko foo jëm mu ne ko àdduna laa jëm loo fa bàyyi mu ne ko xëccoo bu metti nag waaye nag yëg naa ne loo fa yóbbu loo fa am boo demee da nga ko fay bàyyi du fay des liir ni man kon li ma yor naa ko nga bëkkeen du ko foqati wa fii qabdi kaffi tifli inda wiladatihi dalilun ala alxirsil murakkabi fil xay mu ngëb loxoom nag daal di indi ay loxoom armé wu jooy ni uwee jëfandikoo ñetti araf alif ak waaw ak yaa alif borom naxwi arab ni mooy xorofule illati borom tawxid ni déedéet nit yàlla ni déedéet alif illatun li wujudi zaat wal waaw illatun li wujudi sifaat wal yaa illatun li wujudi asmaa mooy uwee jooju liir bi wax nga defe ne du làkk fekk na boo demee wax la ci luxatu suuraay suuriyaan yi ñoom mën nañ laa détecté lan la liir bi wax moo tax liir boo dégg mu naan muumu xamal li mi nga wax ak ñeneen yow yaa ko yóbbu yàlla nee na bu demee ba mën a wax nag ma téye gémmiñ gi nag nëbb ko la mu doon gis moo tax borom moo tax uwee allah la boo ko àddate xam nga nee na boo leen boolee 17 la nee na allah boo dindee zéro yi muy douze nee na boo ci boole xaraf yi muy seize nga boole ci kalima mu jox la dix moo tax julli gi ñu koy def di sept raak xaaji Maalik nag moom moom adat mooy mooy domaine nag moom <laughs> moo tax Baye Mbaye Donde nee na ingénieur bu toll ne yàlla bu duggee ci atelier bu ñu tuddee biiru nit liggéey fa lu valeur ni nit bu nit juddoo war naa xam boppam nee na yàlla génne la foo xam ne ku la fa bëggoon a delloo mu doy soxla nga jul taqal sa ndey sonal sa baay ñu ni nañu génne xar ma ñu dencoon te moo la mag nañu génne mbasin yeñ dencoon te ñoo jiitu nañu génne sajaade ya ana an ana attiru baxiru xayral buxuuri wa afrisu sajaadaati takriman li muxtadimi nga yonent bi wàll la ko ñu ne génne leen sajaada yi taal leen cuuraay yi génne leen mbasin yi ñu sol ñu ne ilimaan nag yaa fi ëpp daraja waaye tey moom yaa koy fekk si nag amaguloo nit ñi benn njariñ yàlla ne wa laqad karamna bani aadama soo koy gëm foofu nga koy gëmee naa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiila génn yooyu ñu génne wolof ni génn génte tuddul génte génn téel la ndax moo woon ca ndiggu baay génn dem ca yaay doom ja woon ci biir génn ci biiru yaay yére yi woon génn xar ma woon ca gént gétt ga génn ilimaan ja woon ca kër ga génn nga ne génn téel yooya maa ngi dem ca gént génte ga mooy génn téel nga faatu nag ñu ne nañ dem ca dëj ba ndax kañ fa dëjoon te déjjati ko ba dëj la fa yow te bu yàgg ñu déjjati la fa dëj fa keneen nga ne maa ngi dem ca dëj moo tax moo doon nag ci biir téere bi mu ni la wax xayir wala taxtar fa kay faxti yaaru na soo gisee yàlla di bañ nit di tànnal boppam yontu yàlla Moussa bi coow li amee ak xeeb yàlla daf ko ni da bëgg a wut ñoo àndal pour ma jégg leen yi Moussa ni ko bàyyil ma tànnal sama bopp ñi ma bëgg a àndal yàlla ni ko tànnal waxtaara Moussa qawmahu na sabaina rajulan li miqaatina bañ ñëwee nag dañu ko lan lan numin laka xatal nara allaha jahrata bala ñu laa gëm gis yàlla yow moomooñu gis nga foofu la yàlla meree rek déclenché benn benn benn benn tonneau ñëpp la rey soixante-dix personnes yëpp la rey moo tax xajmaal mi gis nga ñiy wax ci rajo rek di fontoo yàlla man de duma ma ci dugg balee neeg yàlla rek déedéet am na loo xam ne mënoo ko am na loo xam ne yàlla du ko pardonné boo koy def bala yàgg yàlla di la teg lim lay teg kenn tanewu la ci ci saa si leen yàlla rey fa axatahum rajfa Moussa ni ko yàlla ñii nga rey nii ma tàggoo kër gi ànd ak seeni mbokk seeni jabar ma ñëw bi fii nga rey leen man na rënj bi naan yàlla rey na leen yàlla yow it nag mënoon nga leen a bañ a rey léegi <laughs> qaala rabbi law shi'ta ahlaktakum min qabli xawloo iyaaya bu la neexoon nga avant may ñëw sa nga rey ma lii ñu def nag man mënuma ci dara in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha yàlla ni ko kon nag na fexe ba lu mel ni bu mu répété waat yontu yàlla musaa jël garanti yàlla dekkal ñooña ñu soog a ñibbi kon su fekkoon yàllaa ko tànnal ñooña duñ ko indil jafe-jafe boobu waaye moo tànnal boppam na yàlla seetaan kook ñam tànn kon nag yàlla ku yeboo bàyyi ko mu tànnal boppam wa rabbuka yi maa yashaa wa yaxtaar yàlla nag moom mooy bind ba ñu indee yoon ñu lu tax yàlla indi luñ beneen déedéet yàlla nee na maay bind maay tànn wa maa kaana al muminuuna wa maa kaana muminuuna li wala wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakun lahumul xayratu min amrihim ah ah jullit bu yàlla nangoo ba pare rek bul tànn waaye Seydina Muhammad nag moom moo jot a tànn moom wa mu xajarun yaxtaaru nay la ulu ba ubudatin li hawaani daarin fi charo maqaami kon nag pour ñu gaawantu ci bakkan yooyu juróom-ñaari bakkan yooyu moom la ñuy werdaloo ñun boo gisee ñu naan la awraadu tariqat yépp nañ ko teg ci istixfaar yépp moom la tàmbale booy werd istixfaar la booy wasif astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa qayyum la booy defi sa xadratu jumaa istixfaar bi day yegg si borom shurbu saafi shaafi dafa nit xadara ba la ca njëkk mooy at tawbatu wa wasatuha al inaabatu wa aaxiruha al awbatu ñett yi mooy tuub bu njëkk bi tawba la bu ñaareel bi inaaba la bu ñetteel bi awba la fa man taaba xawfan kooku taaib la ku ku jéggul te fekk dangaa ragal yow da ngaa jéggul wa man taaba tamaan bu dee da ngaa xemmeem yàlla kooku muniban la waaye nag bu fekkee ne ñett yëpp am wa man taaba muraatan lillaahi nga sàmmonteeg tegg na yàlla yi kooku lu ñuy tuddee aib moo tax anbiya yi ci daayiratu awaab la ñu toll looloo indi ni'mala abdu indi awaab sëriñ xaaj maa ngi nañ fexe ba sunu xol ak sunu jikko mel noonu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa